su fekkee ne fukki yëngatu moo am ci monde bi juróom-ñeenti yëngatu yépp bàyyi leen yar ci Cheikh Tidiane ba Inde ba Amérique ba Asie Europe boo jëlee ci monde bi tey yépp Cheikh Tidiane di yëngu loolu yomb naa xam boo demee faas gii rek bunt ba wër xabru Cheikh Tidiane yi buntu bu nit génnee rek waaxu boo leen nuyontee rek mu ne ndax taalibe Baay la nga ne ko waaw mu ne man taalibe Baay laa France laa jóge Inde laa jóge Amérique laa jóge Asie laa jóge fii fii fii ku ne di la wax fi mu jóge waaye man Tijaanu Ibrahima Ñas la loolu boo demee xabru Fass fi Cheikh Tidiane tëdd doo fa toog juróomi minute te bunt bu fa nit duggee rek dinaa leen tiijaanu Baay Ñas laa man kon Baay du warkat ndax nim toll ci maqaama su taxawoon ci kanamu nit ñi duñ gis Cheikh Tidiane toll ci maqaama su waxee wooye noonu jëmale ko ci boppam duñ gaaw a dégg Cheikh Tidiane waaye képp kum fekkoon nga bëgg Cheikh Tidiane moom Baay daa dolli sa mbëggeel da ngay dégg ku nekk naan taalibe cheikh taalibe cheikh bi nga ñëwee ci bàyyi ngay doog a yëg ne yow taalibe cheikh nga ci nga koy doog a confirmé bëgg ku ngumba nga bëggoon waaye bi nga ñëwee ci bàyyi nga doog a gis li nga bëgg xam li nga bëgg mën a wax ci li nga bëgg mën a dund ci li nga bëgg loolu bàyyi la ko jox balaa ngay ñëw ci bàyyi dangay dégg ko naan soppay nabi groupe soppay nabi ak ñoo bëgg yonent bi waaye ci fette su lañ waaye bi nga ñëwee ci Cheikh Ibrahima Niass nag si la si nga xam sa mbuggeelu yonent bi mooy lan si nga xam ki nga bëgg mooy kan ba pare jóge fa dootoo tàqale ko moom ba pencam yàlla loolu bàyyi ñu ko may sëriñ bi lu yëf yi neex neex moom di ngeen ko fi ba moom moom bàyyi di ngeen ko fi ba de waaw di ngeen ko fi ba de waaw loo kumbu ngeen ko fi ndax yëf yi moom la waaw te lépp lu leen sant ci Cheikh Tidiane yi moom defal na ko Cheikh Tidiane yi lépp lu mu leen sant ci yonent bi moom bàyyi defal na ko yonent bi lu mu leen sant ne nañ ko defal sëriñ bi rek moom baay jotaguñ ko ci lim defal Cheikh kenn jotagu ko ci hmm. amul benn muqaddam Baye buy dund ci kaw suuf jot xidma ji Baye xidmaal Cheikh Tidiane kenn jotagu ko ci du ci dooleem du ci xam-xamam du ci du ci temps du ci fitam yonent bi ñëwee ci kaw suuf ba génn àdduna li Baye defal yonent bi ci jëmmam ak ci xam-xamam benn wali yàlla defu ko moo tax bàyyi mu ne ku ma bëgg a xam ñun ñooy ñan dama lay won li ma def lii ñëpp wax wax naa ko waaye li ma def laay wane man li mu def nag lii ci la bokk jërëjëfee bàyyi li mu def lii ci la bokk te def na ko ci ay millions yi gox ci alam bi tey ñëpp di dund Cheikhu Tijaani inna al arwax quwatun wa taqatun wa qudratun xata la yatasawaruha al بأن روحا عظيما تؤثر في جيش كامل ñu ne ruu dafa am kattan am énergie am doole ba àgg na ci ruu yoo xamante ne dañuy agir ci contingent lëmm ci xeetu lëmm ci jamono lëmm ruu googu mooy ruu saalum saalum bi waaw ñun ñi ñëpp lim doon yëkk la ñu branché demal ba Inde demal ba Europe demal ba li li li li li kat boobu di wax papalaay xaw ma naan papalaay papalaay man daal yéemoo papalaay papalaay bàyyi suuf jaar ba am taalib ak ñàkk mooy farceur boobu di reetaan loo nit ñi ñàkk ni mu dëgëree bopp bàyyi fan la jaar ba am taaliba ñàkk da leen ñàkk ci yàlla rek waaw ñëpp naan ay na barxaama wama barxaama ana barxaama ak luy luy barxaama xataa fanaw fi xubbihi wahaamu daf ñoo jottale dañoo dellu ci yàlla jottale ñu yonent bi jottale ñu Cheikh Tidiane ñu ne ko baa yow nag mu ne man amuma nga koy jeex di ko jeex di ko jéex ba gis na yaay moom nekkata moom ñooy xam ne ne yaay moom di nga xam ne nekkata moo àgg ci yonent moo àgg ci Cheikh Tidiane moo àgg ci yàlla bi ngay taxaw nag di gis ne àgg nga laaj ko bàyyi ana yàlla mu wan la ko nga ne ko ana yonent mu wan la ko nga ne ko ana Cheikh Tidiane mu wan ko nga ne ko ana nag yow mu noppi parce que nekk ko nga dem ba ci yàgg gis ne ndekete may bàyyi nga far noppi doo too wax ci sa bopp waaye da ngay wax ci Cheikh ak yonent bi delluwaat ci xadara yàlla bi xaw ma na dégg parce que boo fëggee sa dënd may bàyyi nit du tagg boppam day am kersa si loolu moo tax nag kon tey su fekkee ne am nañ jotaay bi alam bi mel nii tey kenn ku ci nekk yëgal Seexu Tijaani ci yow Seexu Tijaani mooy sa ngëm-ngëm gi mooy sa intelligence bi communication bi ngay communiquer lu nekk ci àdduna bi kooku seex la xool gi ngay xool garab gi xam picc bi sab xool asamaan si muy waaj a taw la la ko xam loo seex la bu yow seex la moo la xam loo ne taw mu ngi waaj a ñëw cheikh moo la woon nga xool jaww ji ba ci bi xam ne penk bi fii la féete cheikh la mooy sa intelligence bi mooy xam-xam boobu nekk ci yow moom mooy ngëm gi nga xool sa baay ñu kii mooy sa baay nga ne waaw dëgg la gëm ko cheikh moo la ko wax moo la moo tax nga nangu ne kii mooy sa baay mooy sa yaay dégg nga loolu mooy cheikh ci yow kooku mënoo tàggook moom mm-hmm. waaw waaye yonentu ci boppam mooy sa yëg-yëg je pense donc je kan moo xalaat ne nekk nga loolu mooy yonantu ci yow mooy yëg-yëg gi waaye bàyyi ñës mooy sa bërëb gi def mooy alal gi ngay def jëm ci li nga bëgg bërëb googu mooy bàyyi himmatuhu tunhilu xaala man araada al ilahu fashabu in rumtal muraadu mu ne yéen ñi bëgg a bàyyi yëpp xool leen bàyyi yéen ñi bëggu yàlla bëgg yonantu bi bëgg Cheikh Tidiane xool leen sëriñ bi burung jëm ci yalla dara mënu ko téye motax ñun tay buñ mëne ci yalla li tay té mënuñ ko won demb yeen ñëpp sét leen fi ñe nekkon demb goor ak jigen du sa jang mi ñala la doon jàngale ci lëndëm nga nekkon ba tay du sa mus gi ñala gënon ngi seen yow indi mata buma dege ma déggee kenn apre damaa def ni def ni après gëstu dal yewu xam nga ti xam deug affaire yi bayila quoi yow xoola yow am na ñu la gën a muus ëpp la fit te ñu nga foofu ba tey yow ñaan gu nangoo la indi waaw il faut ngeen reconnaître li xew lan la bàyyi la bàyyi la il faut ngeen nangu li xew bàyyi la waaw seen bërët gi ngeen di bërët di jëm ci mbaax Alaaji Ibrahima Niass la waaw seen intelligence gi ngeen am xel mu neex mi wax ji muus gi eewu gi mën a communiquer ak alam bi lu me loolooy Seexu Tijaani moo tax mu ne jamono sama jamono waxtu sama waxtu la raw gi sama raw la kudut yàlla du yonentu rek Seex la dafa am lu ñu ragal a wax sax waaye paquetal ma saxaaba yeeg yëpp nga dugal ko ci biir Cheikh tijaan paquetal ma ñëpp dugal ko waaw dugalal ma ñëpp bu kenn génn waaw dugalal ma ñëpp waaw dugalal ma ñëpp moo tax yenn saa yi du ñu ñemee wax sax ndax li ñu xam ne mu leere grâce à Mawlana Cheikh Ibrahim dee leen toog seen xel dem ci bàyyi di ko xalaat rek da dem ba gis ne. yow tur yalla bi ngay wirdi sax baye la xalat ci baye gëna a gaaw ngir nga nga yek yalla ba nga am fa gëjëm jaar ci baye gëna a gaaw sax sa tour wo ngay liggéey xawma nak lolu loolu am nañu ko ñam de len tok rek xol baye xol photom bi yeen sa ngeen di gis ne moy cheikhou tidiane ngeen tok ba ci gis ne moy yonent bi ngeen tok ba ci yagg gis ne moy les nga tok ba ci yagg gis ne mooy sa baay ji nga ñàkk mooy sa jabar ji nga ñàkk mooy sa doom bi nga ñàkk mooy sa dëkkandoo yi nga ñàkk mooy sa mooy sa mooy sa mooy sa poche nga gis ne moonte ñàkkuma dara di loolu mooy baay fa inni kullan min indi bi moo ko wax moo tax man bi ma demee fas toog def naa le tout pour pour rek dajeeg Cheikh Tidiane baay mu dañ sama kanam waaw jéem naa xaatir ci Cheikh Tidiane ba sonn munuma ci dara bàyyi rek laay yëg ma ne ko sëriñ bi yaa ma fi indi te yow yaa wax ne nañ fi ñëw ñëw naa nag li fi ne xaw ma lu mu toll te te amul benn loxo bu la ëpp bu fi mën a tibbee maa ngi toog fii sa palaas ba nga doon toog xaw ma la doon wax waaye sama xaala koy wax xaw ma nag ñoo ko doon laajee sama xaala koy laaj te man gëm naa ne kenn du ma jox ku dul yow fii oh. waaw. fa toog ba ci yàgg rek benn naar ñëw nañu buleen fi jàng dala jàng leen salaatul faatiha ne ma ne ma ne ma na min ay na qudoomikum maanaam foo leen jóge anta Sénégal yi ma ne ko naa mu ne kaay téye sama loxo ba fii mu ne fii la Baay Ñas doon toog mu ne bu toogoon fii man fii laay toog jekk den ak moom fii la doon toog waaw ma gis ne kon moo ma yëkkati taaj ma foofu ba fa toogee tamit moom rek laa doon gis ne ko ah bi fii de aw ma jot aw mënu ma fee tëbbee mënu ma fii ay maga fee lekk waaw fii moom kenn du fi tibbee parce que si saa si la yëg ne man fi bàyyi di naanee waruma fa naanee oh. moo tax jéemu ma sax jege Cheikh Tidiane naan damay tàllal ak damay xencoog damay góox dama xam ne fi bàyyi di dugal loxo man sama loxo du fa dugg ma ne ko sëñ bi daal yaa ne ma ñëw naa ñëw naa waaye bi ma ñibbisee ba léegi dolleeku laay gis oh. te kenn mënumaa teree dolleeku nag barke baa ngis kenn mënumaa teree dolleeku moo tax maa ngi leen di ñaan ne ku fi dajale sa weccet teggi sa natt sax demal faas di nga gis dolleeku hmm. yéen a ngi dem faas bés bu nekk waaye dem leen seen jëmm yi na jóg dem ndax bàyyi nee na léegoo léeg am loo xamante ne ruu gi du ko jëlee jëmm jiey jóg hmm. ci seen ci seen ci seen uh, fulaak fayda yi bokk leen ay natt ngeen teggi trois cent mille yomb na ngeen dem faas ngir li ko bàyyi wax ngeen xool ndax bàyyi bu la yebalee di fa jëli wala doo fa jëli yéen ñëpp dem leen faas même bu dee benn yoon dem leen fa ndax dafa am loo xam ne jëmba koy jëli yal na leen yàlla may wërsëg yàlla nañu am sax ñun ñu xëy sax xadara bi lu ëpp vingt ànd ñun ñëpp waaw dem ziyaare ji Cheikh Tidiane loolu yomb na yàlla loolu yomb na yàlla dégg nga yal na yàlla defal tawfiq dama bëggoon wax rek ne sëriñ baa ngi toog dégg nga muy Abdourahim ndax te geen xam ne dégg nga ci rahmaani rahim kat fa la ñu bàyyi dugal diggante rahman ak rahim rek la ñuy jaabante. waaw mu ne dafa alaxira mu ne kon dafa am bu àdduna ak bu alaxira te bu alaxira leen gane ci sëriñ bi rek ako dégg nag waaye daal lu ñu mën a dekk nag ñun ba yërmande yàlla ji rek lañ soxla ñun yàlla leen ko yàlla defal muy benn ñaareel bi lu war a ci yéen ñëw ci man ñaari mbir la lii war a ci yéen ñëw ci sëriñ bi ñaari mbir la balaa ñoo jox Cheikh Ibrahima ah de yónne woon na Baraam jay mu ne moj jay yónne woon na Baraam jay ci jamonoy koor gi ci jamonoy koor gi xanaa la koor gi ak la woon tey dañ koy dajale waaw mu ne waaw waaw dégg naa foofu loolu seyru la loolu seyru la loolu loolu seyru bu mag la <laughs> mot jey dégg na ko baram tamit comprendre yàlla yàlla motali yàlla yàlla égal sun maqaama bëgg gi ngeen bëgg bàyyi dëgg la yàlla na sax waaw waaw bëgg gi ngeen bëgg bàyyi dëgg la moom rek lañu war a bëgg yàlla na sax serigne bi neena na wax na Abdou Malik ci Nigeria ci Nigeria manako yow auto bu rafet mu yow auto bu rafet kër bu rafet kër bu rafet soxna su rafet mu soxna su rafet yow sa lepp dafa rafet mu mana dafa rafet yow bour nga mu ko yow bour nga wa lu tax nga wax lolu mu lu tax mu wax lolu ah manako sa wi malik yow mi mana ne ko sa tour wi malik yow mi diini manam nguur lay tektal man nak kuma gis do ko foge mune mom nak kuko gis do ko ko foogee uh, barki demb mune barki demb uh, ci kawlax ci kawlax <coughs> ma ñew ci benn way bu defar ay pono dafa ñew ci benn way bu defar ay pono waji dem jëli pono bi man ma tok diko xaar mune waji ji jëli pono bi mu tok diko xaar mom serigne bi suñ mbokk yi ñu ngi def affaire yooyu. nee fekk suñ mbokk yi ñu ngi def seen yooyu noonu. ma ñëw toog. nee mu ñëw toog. am ñu fa nekk. nee na am ñu fa nekk. ñoo xam ne ci ñooñ lay bokk dañ maa xam. nee na ci ñooñu lañ bokk dañ kaa xam nag. dañ dañ maa miin. dañ ko miin. samay xarit lañ ay xaritam lañ. ah mu toog di comme ni ko xale Sénégal waxee. nee na mu toog ni comme ni ko ñëpp gisee. ma calme waaw nee na mu calme toog rek calme <coughs> benn ñaari meer ñëw nee na ñaari meer ñëw duñu ay taalibe baay duñu ay taalibe baay nag ñëw sukk sama la nee sukk ci wetam sëñ bi ñaanu ñu nangam ñaanu ñu nangam nee na ñaanu ci moom wax seeni soxla waaye yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen ñaan mu ne ko yéen ñi yéen ay ñaan man may borom kër gi ci ci kër gi fi la dëkk. nee na ko mu ne ko may borom kër gi. ah da ngeen ma xam. mu ne ko ndax da ngeen ma xam. waaw fa am ku signalé. mu ne dafa am ku signalé le yow doomi Baay Ñas ah mu ne ah. sëñ bi ñaan ñu ñaan ñu rek yow da ngaa yaakaar so so tugay bi ni ki ni simple mm. ni ni affaire bi non la yombee. mu ne ah, ñaanal ñu rek. ñaanal ñu rek da ngaa foog ne ni nga toogee nii rek simple affaire bi yombeewul noonu ñaanal ñu. dafa am ku ñu signalé ne kii diw la. mu dafa am ku ñu signalé ne kii doomi Baay Ñas la. waaw ak simplaayam <laughs> ah. loo fi expliqué ñaanal ñu rek. mu ne ko amul dara looy ñaanal ñu rek. Ah, nee moom tamit mu ñaanal leen. kon nag Abdou Malick. Hmm. maqaamam ak sama maqaamam man du benn. waaw dëgg du benn. bale nele lay représenté lay feeñal. <laughs> dégg na loolu. moo tax man boo ma gisee. kon moom boo ko gisee. bu ne moom la doo doo doo ko ko foogee. bu ne moom la doo ko ko foogee. fukki at ak juróom. mu fukki at ak juróom. ma nekk ko caaroy. mu nekk ko caaroy. maanaam ñëw di fa dal. ñëw di fa dal. maire bi maire bi ma nekkal. mu ne maire bi nekkal. toujours nit ñaa ngi koy wax naan ko ndax kii doomu. maire bi bés bu nekk nit ñaa ngi koy laaj ndax kii doomu Baay Ñas la. fukki at ak juróom. fukki at ak juróom. ah pourtant doomu Baay la de. mu ne pourtant doomu Baay Ñas doomu Baay la de. doomu Baay la. alhamdulilah. waaw ndax euh, ma ne leen ñoom liñ bëggoon. nee na ñoom liñ bëggoon. su ma ñëwee ci kër gi. su ñëwee ci kër gi. waaw gis ay melo moo lay wane ne am na ku fi ne. mu ne ne am na ku fi moo leen di wan ñoom. moo leen di wan ñoom am na ku fi man nag ma ñëw. moom nag mu ñëw contrairement. dàq loolu. dàq loolu. ñëw di sa somb bu di gën jox sama soxla yi di ñëw nekk sama. ñëw simple ànd ak ñëpp comme taalibe rek bu leen seet. ba pare ma nekkee ko fukki at mel na mu nekkee ko quinze ans foofu. ñu continuer di laaj ci boobu rek. continuer di laaj boobu dafa am leneen luñ bëgg benn woykay dafa wax ne nit ki boo ko wanee yàlla dàll lay njëkk a xool dàll boo ko wanee yàlla maanaam lu rëy dàll ya lay njëkk a xool dàll mooy lu rëy méngoo ak ak ak kii te dàll mooy àdduna moo taxoon yàlla waxoon yonent yàlla Moussa su nit say dàll nga agsi kon après dinañ jox sëriñ bi dañ bëgg a jox Cheikh Ibrahima mu def résumé man li ma bëggoon mooy wax nit ñi ci lu ma nekkoon ci suba ba léegi rek ay soxla yu doon ndox pare dem na jóge fa dem Medina Baye yàlla dimbali nañu ba ñaari jotaay yëpp fekke nañ ci li ci gën a am solo ba minuit lañ fa jóge presque defuñ sax deux si yoon bi loolu lañ bëggoon wax waaye dañoo kontaan ci jotaay bi ndax ba tey ñu ngi wane ne daayira bi màgg nañ yàgg naa leen wax ne suñ demee ba su ma fi nekkee ak su ma fi nekkut nuroo ñu doog wax alhamdulillah te kon ñu ngi doog wax alhamdulillah ndax lépp lu fi ne rek suñ fi nekkee ak fuñ ci nekkul dana dem moo tax man xadara bu may dem du ma tàggoo du ma batale parce que ñun ñëpp a yem ci baay te ku nekk loo def bàyyee koy jël lu waay def sa bopp moo tax xadara bi man noonu laa ko tëralee amul numéro deux amul kii fi yàgg ci daayira bi gën a bëgg rek gën a dëggu rek gën a jëriñu ci Mawlana Cheikh Ibrahim te leer na ma nañ ak xam ne li ngeen di ut newut ci man waaye mu ngi ci kii tax ñi daje fii ñaata at kooku nag moom mu ngi fi ba tey muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Imam Assane wax na ne alxames bu ne ñu gis ko. rendre ko compte wax na ko benn siyaara Medina Baye mu ne képp ku ne Medina Baye dara newatu fa toogal fa nga toog mu ne ñun ñii lu mu dee dee alxames bu nekk ñu gis Baye rendre ko compte loolu yàlla nañ ko yàlla may moo tax nag kon nañu góorlu ci lii te dëgër ci dañu xam ne monde bi ci boppam dégg nga taalibey bàyyi ci boppam ñoom ñooy ñoom ñooy régulateurs yi tey xool leen Sénégal ci li ñuy xëccoo biñ fi saagaa yonent bi gisoo kenn jooy biñ fi xotti alxuraan gisoo kenn jooy waaye leneen tax na nit ñi di amer de nit ñi ci dëkk bi loolu yàlla na yem suñuy bët rek li ñuy yëg dëgg la nañ ko dëggal dëgg nañ ko dëggal kon nag yàlla yàlla saxal ci lii kat mie gii dégg nga euh, yëfi Cheikh la dégg nga kudut mom rek Cheikh Tidiane la jox daan na ko wax ci sama waxtan yu njëkk ya nan leen yalla mom mo ne tek ci tekam nga rek waye li yëngu bañ xamne amna lu ne ci biir moy moy yalla Muhammad comme bitik bi tay ku fi ñewon taxaw xamul ndax bitik bu amul dara la wala bu am dara taxaw fi lool yag fi lool bu dege yëngu yëngu ge ko yëg loo ne am lu ne ci biir yëngu gogu moy yonent bi waye yëngu gi bu doon yëngu te kaddu jogul do ko xam waaye kàddu gi jóg ci li yëg loo ne am na lu yëngu mooy cheikh léegi nag yëg-yëg gi gi la yëg am na lu fi ne te kenn waxagu la nit day àgg ci maqaama boobu loolu mooy bàyyi moo tax alam bi loolu rek a fi nekk li si des yëpp loo gis ci àdduna bi rek dogit la ci yonantu baa mu dox dogit ci cheikh Tidiane baa mu dox dogit ci bàyyi lu dut yàlla du yonantu nag cheikh la moo tax nag kon loolu nañ koy dund Cheikh Tidiane moom rek lañ mën a dund pour mën a defar suñu àdduna Macky Sall mii maqaama Cheikh Tidiane rek la mën a dundee ci palais bi pour sénégalais yëpp gërëm yenn yéen borom kër yi maqaama Cheikh Tidiane rek ngeen mën a dundee muy kër murit muy kër Tidiane muy kër xaadir muy kër layen muy kër katolik muy kër ceddo maqaama Cheikh Tidiane rek nga mën a dund sa biir kër gi defar sa kër say doom yëg ne ku ne suñu bàyyi la ñu gërëm la dund gërëm la dee maqaama Cheikh Tidiane rek la président Amérique mën a dund pour américain yépp ne ko jërëjëf président France adduna bi bam mu réew mu jag président buñ ne eskay rek maqaama Cheikh Tidiane nga dund moo tax sa réew ne eskay xaw ma ndax dégg ngeen loolu doxaankat yi sax denga <laughs> denga ak maran kat yi maqama Cheikh Tidiane ngeen meuna dundu pour nga am jamm jot sa càkkuteef ah waaw waaw waaw motax Cheikh Tidiane ne aduna ma koy doxal su fekke ne aduna auto la volant bi sama loxo la nek ba yalla di yalla ba pëncam yalla bu fekkee ne àdduna fas la laxaab bi maanaam weñ boobu mu yurgal ci gémmiñu fas bi wala gémmiñu mbaam bi di ko ommat Cheikh Tidiane nee na sama loxo la nekk ba pencam yàlla moo tax li ma leen di wax dafa teer teer ba ngeen yaakaar ne dañuy kaf waaye mooy xaqiqa bi bi wër yàlla yëpp di wër te Cheikh Tidiane ko waxal boppam. gis nga ñii. sëriñ bi nee gis nga ñii ñan. surtout jigéen ñi. mu ne surtout jigéen ñi. dafa am lu bëri yoo xam ne dañ koo réeree. mu ne dafa am ñoom. bés naa ko wax benn waay ci téléphone. nee wax na ko benn waay ci téléphone. koo xam ne du taalibe. nee na koo du taalibe. mu ma yow nag yow nag yow nag yow laay jàpp ngay sama sëriñ. mu ne ko nag yow laay jàpp ndax sama sëriñ. dafa am benn baat boo fa wax léegi. dafa am baat bu wax léegi mu intéressé sëriñ bi nag. bu buñ ko waxee nit ñi wax naa ñaa ngi di ree. maanaam donc war a war a wax moo tax ni ñi de. waaw nee nañ fooguñu baat bi de fii la war a génne moo tax ni ñi ree <laughs> dafa am baat bi mag ñi di wax xale yi di ko wax. mu dafa am baat mag ñi di wax xale yi di ko wax. jigéen ju bëgg góor wala góor gu bëgg jigéen. mu ne jigéen gu bëgg góor wala góor bu bëgg jigéen. mag ñi dañ ko tuddee di woy bëgganteeg di woy diw moo fi seet. mu ne di woy seet di wala diw bëgganteeg. mag ñi loolu la mag ñi di wax. xale yi ñoo ko modifié. mu xale yee ko modifié nag ne. bë bëggante génn ak. génn génn ak yooyu xale yee ko bëggante waaye. mu ne ñaari mooy utile. mu ne mooy utile mais jëf ji la. mu ne mooy utile waaye jëf ji la. waaw ah, mu comprendre loolu. <laughs> kon ñu jox Cheikh Ibrahima. sëriñ bi yóbbanteem dégg nañ ko. te damay wax ne kenn ku ci nekk bu yëgee ne moom bàyyi defal na ko daal na génne addee baay mu jox la bëggoon naa waxtaan waaye tey damaa sonn wallahi damaa sonn tey bëggoon naa waxtaan ndax bi may ñëw rek dafa am benn bi may bi may ñëw dama dégg benn Cheikh Tidiane bu jege jege jege jege waaye damaa bëgg ngeen indi addee baay kenn ci nekk bu gëmee ne Cheikh Ibrahima Niass defal na ko dara Cheikh Ibrahima Niass a ngi nii toog génne leen ko ñi am soxla nañ ci ñaan seen soxla ñu indil ma jërëjëf addiya addiya Cheikh Ibrahima Niass indi leen ko Serigne Ba ngi nii toog ñu jox ko ko ñu jox Cheikh Ibrahima mu def jigéen ñeeg ñëpp ku am soxlaam jigéen ñeeg ku mën a na indi addiya Serigne ñu jox Cheikh Ibrahima allah allah allah ñaanaale leen seen soxla yi allah waxul de waxul de waaw jërëjëf waaw sëriñ bi Pape micro bi micro bi micro bi waaw waaw seen soxla waaw sëriñ bi waaw ñu ngi ziar ñu ngi ah si gis nga waaw jërëjëf ah Pape ma ne damaa bëgg a dama bëgg a waxtaan ci benn ci bu jege mais sa waay

lañ bëgg ñu ñëw nit ñëpp ñëw ñu sikkar te dama bëgg ñu sikkar lu bari bari bari bari bari liñ ci soxla ñu wax ci mooy famille Këppa gagné ñu wax ci sëriñ bi ñu wax sun alaqa ak Cerno seydo gagné ñaanal ko yàlla won ko ne ko tey reconnaître nañ boole gi ñu bàyyi boole woon ak moom kon at bu jot danañu yeesal sun sun suñ digganteeg famille waaye li ma gën a soxla ci jataay bi dañoo gëm gàmmu Medina bàyyi xol yi dañoo war a dund ba Medina Baye sikkar lañ soxla sikkar jamono jii bari leen loo leen di jàng salaatul fatiha yu amul lim nekk ci diggante Baye diggante Cheikh Tidiane ak kan yonentu yàlla Muhammad bu leen dara affecté jamono jii bu leen xalaat politique bu leen xalaat parti bu leen xalaat ay assemblée bu leen xalaat tous ñooñu yoruñ suñ dara suñ dara newut ci ñoom suñ dara newut ci ñoom ñun suñ lépp gi ci bàyyi suñ lépp mu ci Maulana Cheikh Ibrahima suñ lépp a ngi ci bàyyi ñoom seeni soxlay bopp lañuy ñuy dox damaa bëgg seen xol yi di jaabante ci jamono ji diggante Cheikh Tidiane ak Muhammad Rasulullah te kii jaabante kan la saalum saalum bi Maulana Cheikh Ibrahima ñun ñëpp nañu wax jërëjëfee bàyyi ñun ñëpp nañu wax jërëjëfee Baye Niass ñun ñëpp nañu wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye Sikar, sikar, sikar. Recep sikar, Recep sikar. Recep Bey, Recep Bey, Recep Bey, Recep Ahu, Recep Ahu. भाई भाई काई बी भाई के किल भाई कारे Thank you, Mumbai. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. rek lii rek doy na lii doy na doy na ci màggal katmiya ndax kat katmiya boo ko déggee dañoo dàq ñëpp bàyyi lañ doon wàcc ci Cheikh Tidiane bàyyi lañ doon wàcc ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mooy emballage bi bidon bi ñu tëcc lañ ci def mooy bàyyi katmiya ak xatmiya mooy emballage bi emballage boobu Cheikh Tidiane mooy ay aynil katmiya wal xatmiya li ñu nëbb jëmmi lim ñu nëbb jëmm ji emballage bi waaye da di gis ne li ci biir buñ ko génnee rek bidon bi ne ci biti kon boo gisee bidon bi ñu koy garder ka teg ci oto yi dugal frigo nangam sirru katmiya bi ne ci moom la moo tax su sukari ji waxoon nit ñi ne leen Cheikh Tidiane mooy jaaro bi waaye bay Niass moom mooy taaru jaaro bi nga xamante ne ku ko seen moom ngay gis mooy seeraayu jaaro bi muy xaqiqa bi te mooy taaru jaaro bi muy xaqiqa bi mu ne Baay Ñas mooy loolu Seexu Tijaan bahrul anwaari xatmul awliyaay xatmu xatmi moo di Baay moo doon mu Tijaan yi maa ngi ñëw maa ngi man waxtaanu ma damay jox Cheikh bi rek moo tax moon ma ma jël pour présenter ko dama naroon noppi ba dem waaye nag comme que sëriñ bi ñëw na dégg nga fii sax sëriñ mosu fee am fa alhamdulilah waaye ñaar ñuy représenté sëriñ bi fi am moo tax bu sëriñ bi ñëwee man danaa def geste buy wone ne sëriñ bee ngi nii pour ma mucc man waaw ndax bàyyi rek a fi nekk nag barke Baay Ñas fii bàyyi rek ci biir ak ci biti bàyyi rek barke Baay Ñas bu leen jaawal baay rek a fi nekk waaw bàyyi rek a fi nekk nag waaw kon nag sëriñ bi Cheikh Ibrahima mu jël mu def résumé am buñ paree sëriñ bi dinañu ñaanal dégg nga di leen wax ne bi ma toogee léegi ci xabru baay wax naa ko ne maa nga fa fe maa nga fa bàyyi gaa yoo xamante ne ñii ma fi fekk gënuñ laa bëgg maa nga fa ma ne ko yow yaa yaatu nag ba sa mbir mi tàkkee fu nekk moo tax ñëwuñ waaye ñi fi teew nag gënuñ leen a bëgg ëppuñ leen ittee gënuñ leen a jeex loolu laa ko wax ma ne ko nag sa mbir mi tàkkee fu ne ci nu fonde la fépp lay tëf tëfi loolu koy gën a dégg waaw ah ay sa kii xam boo toggee yàlla bu cin bi yaatu na nga toog ko ba mu yëpp yëpp a ngi yëg Cheikh Tidiane Maola grâce à Maolana Cheikh Ibrahim ñun de mucc nañ ñun de mucc nañ sëriñ bi dama ko seeti mu jóge gàmmu Nigéria mu ñëw toog rek mu ne gis ngeen la fa xew de ñu ne ko waa sëriñ bi lii kay yéeme de mu ne ña nekkoon ci stade bi ñu nekk ci mbedd mi ëpp mu ne amul benn salle ci biir dëkk bi wala benn salon bu rëy te nekkul ne am na groupe bu fa toog di waxtaanee Cheikh Ibrahima Niass bi rek ngeen gis yéen mu ne te ñi taxaw ci stade bi xam nga lan la ñuy wax ñoom soxlawuñ discours soxlawuñ dara lu dul yàlla na leen seedeel ne bi ñuy màggal bàyyi ñoom taxaw nañ soxlawuñ moo tax tamit ñun nañu yàlla seedeel ne bi ñuy màggal kat mi nelawuñu kon dégluwuñ fi sax lenn si sikar sax dégluwuñ ko mooy nañu nañu nañu nañu nañu nañu ñàkkat nelaw ndax yëg ne bér bii lañ joxoon Cheikh Tidiane lañ ko jox waaw loo ci dolliwaat rek Cheikh Tidiane dolli la waaye toogoon xaaju guddi sa kaw lal sax pour yëg ne tey la woon sàppe ñun suñ drapeau Sénégal bii buñ koy yëkkati ñëppay taxaw lu tax lum ñu defal benn verte zone rouge la ñu jox ak ay lépp rek nappee ñu ko rek ba fuñ koy yëkkati ñëpp taxaw mais lu day ni wilaaya ñu ne jour bii lañ koy wàcc ci alamul ulli muy jëm ci alamul euh, euh, euh, sufli ñuy nome waa ji waaye sëriñ bi war naa fekk ku nekk boo feebaroon sax war a jël sa njëganaay wéer sa lal toog def benn benn benn cinq minutes de silence xaw ma na lañ koy waxee dégg nga cent minutes de silence sax laay wax dégg nga pour yëg rek ne tey bii la affaire bi doon jóge ci alamul ulwi di ñëw ci alamul sufli loolu nag bu ñu ko yëgee grâce à Maulana Cheikh Ibrahima waaw leen fàtte waa ji de bu leen ko fàtte mukk mukk mukk tok di ko xalaat sax barke Baye Niass moo gën sen dok ngeen di def tok di xalat salum salum bi rek di ko ko xool ci di ko xol ci mbaxam ci tabem ci yaram ci ci yarom ci yatom ci ci xam-xam ba ci ay jëfëm ci lu mëna nek rek wallahi de nga de nga mun naa weccoog loolee mëna doxale seen digënté sen borom barke Baye sëriñ bi jëlal dama xaw seen amul maas aboori jaal moo di suñ baay lam baara xamaa te si wute gësti gësti moo di soonaa moo di bëgg samul nay baal الحمد لله يعني بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بزفر ñi sant yàlla di jille ci di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima di wax ñun ñëpp ñu wax jërëjëfee baay. jërëjëfee baay yes. ñëpp ñu waxaat jërëjëfee baay. jërëjëfee baay yes. ñun ñëpp ñu waxaat jërëjëfee